إبليس الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa ak jataay bi di Serigne Cheikh Mbacké Thiam mi nga xam ne moom la jiital ci section bi di nuyu président daayira Joal bi ak présidente bi di ziar boole mag ñi nga xam ne nemmiku naa leen ci jotaay bi te ba léegi tekkeeguñ seen laxasaay mu mel ne loolu ab soññee la ci ndaw ñi di nuyu sama bokki conférencier yi nga xam ne ñoo jiitu te liñ wax doy sëkk ndax melni sax suñ ne won woon cheikhuna ak seigne bi ko jitu danañ teew ci jotaay bi sax man du jar may ñëw ndax liñ fi wax doy na sëkk ab yóbbal macha allah mat na sëkk man nak liñ ma doon waxloo may itam sëñ la dal sëñ Cheikhouna dana ma dal mënuma wax lépp ndax daa xaw yaatu waaye nu itam dañuy jiima tënk rek sunu kem kattan liñ bëgg a tënk nag mooy lii nga xam ne ci lañuy ñuy yëngu ñun muy daayira dañoo bëgg tënk daayira démb ak daayira tay nu mu demee comparé leen daal ba ñu xam mbir mi nu mu demee dëgg dëgg dëgg loolu nag ñun bu ñu ko dee leeral tout tànk ya tax ñu du ko def gone yi nga xam ne euh, ñoom biñ juddoo yàggul xamuñu daayira nu mu demee dañoo judd leen dégguñu naan daayira de te xamuñ nu daayira demee ñoo ñoo tax ñuy wax waaye mag ñi ma mag ñi nga xam ne lii may wax fi la leen fekk ñooñu waxuñoo ñoom ñooñu ñoom dañuy jële ci ñoom ay xam-xam tey waaye daayira mooy lan duñ leen ko jàngal baatub daayira nag comme ni ko sëñ Cheikh naa waxee léegi ne mbir boo ko dee jàngale nañ koy dangay xamle mooy lan daayira ci arab dana firi mbooloo mu dajee fenn comme ni muy firee ab cercle waaye ki ko sos nag mbooloo mu dajee fi barab moom la ci jublu moom la jublu ci baatu daayira bu dee ci ni ñu ko déggee ñun murid yi mooy mbooloo moo xam ne ay taalibe lañ yuy dajee ay bis gu nekk ci béréb ngir ay objectif yu ñu ràññi yoo xam ne yu ñu xam la yoo xam ne xam nañ ne loolu moo leen fi dajale loolu mooy daayira kon ci tënk bu ñëwee nag ci daayira kan moo ko sos daayira fii ci yoonu Murid dey Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko njëkk a def Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo njëkk a sos daayira fii ci yoonu Murid loolu nak Serigne Cheikh bi ngi ko njëkk a sos 1942 1942 ci la Serigne Cheikh njëkk taxawal daayira bobu waajuram wu baax wi Serigne Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi fi ak Cheikh Mamadou Fadal bobu daal mag ñëpp ngi fi 42 ci la Serigne Cheikh njëkk taxawal ab daayira daayira boobu nag. wax nañ ne tarixa yépp ko taxoon a jóg tarixa yépp maanaam daa bëggoon leen tarixa yi tarixa bu nekk am ci ab poste nga xam ne day lëkkale tarixa yépp tarixa murid tiijaan xaadiriya le Serigne Cheikh bëggoon a lëkkale bañ doon benn ba lépp lu ñu bëgg ci réew mi mu mën a di xàccandoo di dóorandoo di fal di folli seen kaddu doon benn lu bëgg ci réew mu am loolu la suñu Cheikh jubloon ci daayira bu njëkk baa jëkk jëkk waaye bi mu ko lancé ci yeneen tarixa yi amuñ ci dégg gi mu am moom ndax charte ya mu ci tëral rek yam tëral ne mooy tax a bokk ci daayira bi ñoom buñ ko xoolee dafa wax ne da ngay doon murit bi mu ne da ngay doon murit nag am ci tarixa yi ne ah kii kay kon murid di lay woo waaye ñun suñu yoon néew ci loolu bu ko suñu Cheikh yëgee def ne man damaa yaakaar ne ñoom xam nañ murid lu muy tekki ndax ab murid mooy jëmm ju amul sëriñ jiital ko ñuy ànd di yàlla loolu mooy ab ab murid loolu mën naa doon tiijaan mën naa doon ñi ñii nekk ci gannaaw sëñ Touba mën naa doon ab xaadir murid mooy ku amul sëriñ mu jitu nga top ci ngeen jëm ci yalla lolou moy mourid seigne cheikh nak ne da nga don mourid ndax bobu tarixa yi la bëgg dojalé motax mu ne da nga don mourid biñu ñaké dégg baat bobu da ko daal di far daan ne da ngay don muslim manam ab julit waye daayira bobu mu jul dem ndax daayira ba mu jul dem ndax comprendre ruñ ko daal yamale ko rek ci waa kër njabootu sëñ Touba gi bi mu ko yamalee ci njabootu sëñ Touba gi nag yaatal na ko ci këri sëñ këri sëñ Touba yëpp fenn fu ci nekk am nga benn membre ndax ñii ma lay bëgg a wax boobu bokk nañ ci daayira bi Cheikh Mouhamadul Fadal boobu bokk nañ ci daayira bi Cheikh Mouhamadul Bachir Cheikh Mouhamad Modou Awa moo Modou Awa Balla sëñ Modou Mamoun Niang ak ñeneen ak ñeneen ci ay kilifa yu wuute ci ay kër yu ñu bàyyi ko. bokk nañ ci daayira muy daayira boo xam ne daa dajale yoonu murit yëpp daayira boobee nag 42 la ko sosoon kim ni kon ni ko waxee léegi waaye daayira ba nag moom itam euh, jàllut ndax ku ne xam ne ne sëñ Cheikh ak déggam akuk yeewoom ak tànkam bu gudd ca jamono jooja fu ne mu teg ko fa lu ne mu xam ko loola da ca xawoon a raw sëriñ sim jamonoon teel ba léeg-léeg ak bëggam ak gis-gisam sëriñ si bari duñ mën a gisee noonu ñu mën a déggee noonu daal ndax xëy na seenu seenu njàng ci wàllu njàngum français walla seenu seenu tànk àggul foofa ba tax na sëriñ si dégguñ daayira booba ba tax sëñ bi sëñ Cheikh daa mujj bàyyi daayira boobu biñ ñëwee ba ci 1966 1966. sëriñ Cheikh dellu woote waat ndakaaru sëriñ Cheikh woote ndakaaru sëñ Modou Mamoun Niang mii ndeysaan bokk na ca ñëw wuy ji woon nga xam ne sëñ Cheikh nga ko woo ci téléphone sëriñ Fallou ci téléphone Cheikh Maodo Fadal téléphone fix boobu moo am ci la woo sëñ Modou Mamoun Niang mu ñëw ñu ne ko sëñ Cheikh di la soxla ca Dakar mu woo ay kilifa yeneen yu bare bare am na ñu ma ñu ne ma sax ña mu invité woon ca Maro ca njataay ba ay chrétiens sax am na ci pour waxtaan ak ñoom ci daayira bi mu bëgg tëral ñooñee ba mu leen dajalee ca dakaar waxtaan ak ñoom ci ni mu bëggee daayira ba noppi xibaar bi daal di tasaaroo nag ci ci région yi waa Kaolack jot ci waa Thiès jot ci waa Touba waa Ndar waa Louga waa Diourbel ñëpp jot ci daayira ñëpp xam ne Serigne Cheikh Kane ndekete wootam bi daa am lu mu bëgg a créer lu mu bëgg a sos lu tudd daayira loo xam ne daa bëgg ñëpp bokk ko ñëpp xam ko ñëpp di ko defandoo ci dëkk yëpp loolu ba mu amee dëkk yëpp commencé sos ay daayira man nag daayira bi ma ci tudd comme modèle comme exemple mooy daayira bi nga xam ne moom lañ njëkk a sos ci Touba ndax loolu ba mu amee Ah, Serigne Cheikh daa daal daa daal woolu ay mag yoo xam ne jàpp na dañ mën a porte mission bi dañ mën a dañ mën a eh, def li mu wax daal am na ci eh, kilifa yoo xam ne ci yu fasante ko ci ay barab Serigne Cheikh leen daal di woolu ñu ñëw biñ ñëwee mu xamal leen ne ci biir Touba ci biir Touba rek. sëriñ Cheikh woolu ay kilifa yu bari ñu teew mu waxtaan ak ñoom xam leen dama bëgg fii ci Touba ngeen sos fi ngeen créé fi benn daayira mag ñi xam naa su ma bañutoon bu gudd mën na maa tudd kilifa yi nga xam ne yépp teew nañ ca jataay boobu waaye damay bañ fi gudd ba mbëpp waaye euh, mag ña mu woo ñi nga xam ne génn nañ àdduna ju jar ma leen di tudd waaye mën nañ la tudd ñaar ñoo xam ne ñu ngi dund ba tey muy Baye Sëñ Diop ñànka ak Baye Cheikh Jang Baye Cheikh Jang ak Baye Sëñ Diop ñànka te mag ñi Serigne Cheikh wooxoon njëkk leen a wax daayira ak ku ñuy wax Serigne Cheikh Diop tappet moom la Serigne Cheikh wooyee Daaru Salaam gerle mu ñëw mu jiital ko ca daayira ba ñu taxawal daayira boobee ñaari mag ñi ma tudd léegi ñoom ñu ngi dund ñi ngi fi mooy Baye Sëñ Diop ñànka ak sëñ Cheikh Diop ak euh, Baye Sëñ Diop ñank ak Baye Cheikh jang mom ñi ngi fi ba legi ci daayira bi sëriñ Cheikh jëk jëk tabax tabax taxawal ci Touba ci lañu bokkon bay Mor josi mi men mi ngeen xam ci daayira bobu la bokkon serigne Moustapha ndjay ci la bokkon euh serigne euh, Lamine mi nga xam mo doon secrétaire français ba ci la bokkon ñu daal taxawal nak daayira booba daayira bi njëkk a tabax ta taxawal boobu daayira vingt cinq personnes moom ngay am doog a mën a taxawal ab daayira fukki nit ak eh, ñaar fukki nit ak juróom booba moom ngay am doog a taxawal ab daayira booba réunion bi gaawu lay doon gaawu samedi lay doon samedi ñëpp itam ci pencum daaru xuddus mi la ñuy dajo dajee Tuubaa gépp benn daayira fi nekkoon booba pencum daaru xuddus la nekk waa kër sëñ Fallu dañ daan wuyu si waa kër sëñ Bachir dañ daan wuyu si waa kër sëñ Baara dañ daan wuyu waa Gede dañ daan wuyu ñëpp dañ daan wuyu si benn dayra boobu ci pencum Daaru Xuddoos ñuy teg samedi bu ci nekk juróomi dërëm moom lañ daan moom lañ daan teg samedi bu ne juróomi dërëm lañ daan teg booba euh, am na lu ñu lu ñu daan tudde social juróom-benn fukk la daan doon ca jamono jëm moom ngay teg booba carte yi carte daayira bi mi ngi jar ñeen fukki dërëm ñeen fukk boobu moom la carte yu jar deux cent francs <coughs> ñuy dajee noonu samedi bu jot ñu dajee ci penc mi kuy ñëw indaale juróomi dërëm booba juróomi dërëm mooy cotisation carte bi di jar carte daire bi carte membre bi di jar ñeen fuk ci jamono jooja bobo kuy ñew daire tani bu wex ngay sol ñu nañ baye xel li may wax bu baax bobo kuy ñew daire tani bu wex dal ngay sol kon ciosanul daire moy tani bu wex sëriñ cheikh tani bu wex la diglé woon ku daan ñew daire boobu tani bu wex tàll bi ñuy sol ñun ku sa daire bi ñeuk ñeuk sos ci touba biñ njëkk njëkk sos ci Tuubaa kuy ñëw tenue bii ñuy sol ngay sol mooy tenue bu weex tàll ñi dajee ci pénc mi di daayira Baye Cheikh Diop Tapet moo ko jiite ñu ne ca daayira boobu di ca dox di ca dox di ca dox nga xam ne sëriñ bi da ko daal di tuddee daayira bu njëkk ba ba ma ba ba ba ma njëkkoon a tudd tañ sosoon ko ci 1942 sëñ Cheikh mi ngi ko tuddee woon diwaanul muridin diwaanul muridin la ko sëñ Cheikh tuddee woon waaye ba bañ bàyyee daayira boobu sosaat beneen daayira 1966 daayira bu mujj boobu moom la sëriñ Cheikh tuddee ittihaadu atbaayil xadiim li taawuni wa tamassuki bi diinil qawi ittihaad boobu nag bi ko sëriñ Cheikh sosee daa am ay objectif yu tax mu def ko daa am lu mu ci jublu woon daal lu mu ay objectif yoo xam ne moom la ne moo tax muy sos daayira objectif yi ba ci jëkk mën nañu wax ne mooy daa bëggoon jullit yépp daje comme ni ma ko waxee léegi ni ma ko ji léegi daayira bi ko Serigne Cheikh di sos daa bëgg jullit yépp yépp yépp daje àndandoo comme ni ma la ko waxee daa bëggoon la mu njëkkoon a bëgg mooy murid yeeg xaadir yeeg tijaan yi dajoo doon benn ba loolu sottiwut mu dajalewaat waa kër sëñ Touba yi bëggi bëgg buntu kër sëñ Touba yëpp dajee doon benn buntu ko sëñ Touba yëpp dajee doon benn loolu itam dem na ba xaw am gàllankoor waaye nag dox na ab diir boo xam ne ñëpp ci pencum Daaru Xuddus mi la daje kon objectif bi nga xam ne moo moo taxoon sëriñ bi sos daayira ba ca jiitu mooy daa bëggoon mbooloo mi mépp dajee doon benn dajale njabootu sëñ Tuubaa gépp ñu doon benn ba ca tepp ba ca topp mooy daa bëgg bépp problème boo am ci àdduna daayira mën a daje mun naa xase ko critiquer ko càmbar ko xool ba xam fan la ci jullit yi wala fan la ci taalibe yi war a teg sinu tànk loolu bokk na ci li taxoon mu sos daayira xool daal lépp lu xew ci réew mi rek ñu xool ban solution lañ ci war a am loolu bokk na ci objectif yi daayira ba ca topp mooy sëriñ bi daa bëggoon daayira dugal loxoom ci lépp luy suqali jàng ak jàngale jàng ak jàngale ndax bi mu tabaxee école yi moom sëriñ bi daa daa digal daayira yi ne leen dëkk boo am ab daayira am ab école na waa daayira ba di fay jàngalekat ya nga xam ne élèves yi ñoom toog rek la ñuy def di jàng benn élève du jàng benn élève du fay day toog di jàng rek loola nag bi ko sëñ Cheikh def lam ci jiblu mooy bëgg ñëpp di jàng ku am doole jàng ku néew doole jàng mu ne daayira yi nañuy fay jàngalekat yi jàngalekat yi yi jàngale français ak jàngalekat yi jàngale arabe sëñ Cheikh moom xam-xam ni mu ko daan waxee xam-xam xawma bokk ci la daan wax xamutoon ci xam-xam njàngum français njàngum anglais njàngum arabe njàng yëpp la yemaloon daa bëggoon nit ñi jàng lépp moo taxoon mu sant daayira bi ñuy fay jàngalekat yi jàngale arab di fay jàngalekat yi jàngale français kon daayira bokk na ci ay objectif am taxawu jàng ak jàngale bokk na ci daayira yi li tax daayira jóg tam mooy organiser ay conférence yu mel ne conférence bii ngeen def tey yéen ñii tey bu daayira mutoon bu daayira amutoon du ma teew fii daayira moo tax ñu am possibilité mën a dajale mbooloo mii su jiwaale amutoon dayre mbuur amul daayira tuuba amul daayira ndaje mii tey du am sëñ Cheikh daa bëggoon ñu sos yi ngir mën a dajale mbooloo yi di def ay conférence yu concerné jullit yi waxtaan wi fi sëñ Cheikhu naa def ak sëñ bii waxtaan wi fi def léegi bu daayira amutoon duñ ko dégg sëñ Cheikhu naa day toog këram sëñ bi day toog këram kenn ku ne jàpp sax njàmbur daayira bi moo may occasion mbooloo mi ñu mën a toog déglu waxtaanu gaa yu baax yi man ko yóbbaale man cee njariñ kon loolu bokk na ci objectif yi taxoon Serigne Cheikh sos daayira na ci li taxoon Cheikh sos daayira mooy daa bëgg daayira bi daayira bi taxawu gàmm gi gàmm gi rasulullahi sallallahu alayhi wa la bëggoon daayira bi taxawu bokk nañ ci li taxoon bu sos daayira yi itam ba tey bëgg muy taxaw màggal bi màggalu ñaari màggal yëpp màggalu 18 safar ak màggalu ishru na muharram ñaari màggal yooyu sëñ Cheikh daa santoon waaye daayira bi ñu di ko taxaw boo xoolee daayira nag ci objectif am yi dangay gis ne mën nañ ko ballalu xalaat bi xalaatu sëñ Cheikh ci sos daayira mën nañ koo ballalu ci alquran ndax suñu borom mi ngi wax ci biir alquran naan واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آية جوجي سن دفنه yéen mbo yéen julit julit yi maa ngi leen di sant ngeen moy ci buumug yàlla gi te bañ a teqali ko daayira suñu Cheikh da ko def ngir bëgg julit yépp moy ci buumug yàlla gi genn buum boole ñoom ñëpp ñuy benn xoole fii mbooloo mi ni ñu àndandoo doon benn lan moo leen boole loolu daayira loolu rek la suñu Cheikh jubluwoon yàlla gi daayira dajale fii loolu nag la suñu Cheikh da bëggoon daa bëggoon lu nu boole loo xam ne dana nu mën a boole ñuy mën a dajee fi benn barab buñ demoon ci hadiisu yonent bi itam sallallahu alayhi wa sallam dañ gis ne daayira dana fa am cëslaay mooy yonent bi nee na al muminu lil mumini kal bunyaani yashuddu baaduhu baadan jullit ak moroomum jullitam dañoo mel ne ay mool ay mool boo leen boolee tabax leen mool bu ne mooy téye moroomam boo xoolee mbooloo mi nii fi ne daa mel ne bâtiment boo xam ne dañ ko tabax ba noppi bâtiment buñ tabax ba noppi la ko waral mooy dajee giñ dajee rek ci ab daayira te li leen dajale mooy daayira kon moo tax nag sëriñ Cheikh bëgg jullit yëpp mel ne ay móol kenn ku ne jàpp ci sa morom te loola la ko man mooy nos leen ci génn buum te buum googee nag mooy daayira waa kay <coughs> noonu la daayira doon doxe ci jamono Serigne Cheikh di dem di dem di dem ba Serigne Cheikh génn àdduna ndax waa Touba daayira bi njëkk sos Touba ni ma la ko waxoon léegi daayira bi njëkk a sos Touba bi bi ñu doxee 66 bi bi ñu ko sosee 66 waa daayira bi dañoo dem ci Serigne Cheikh ne ko dañoo bëggoon ak màggal. goo xam ne dañ koy màggale at mu jot sëñ Cheikh na da ngeen di tànn 4 mars 4 mars waaye daan leen dem leen ca Baye jaañ dem leen ca Baye Diagne ca Mbàkke gën a wóorlu ko at bi bis bi ndax 4 mars googu ci la ñu tàmbali liggéeyu jumaa ji sëñ Cheikh ne leen 4 mars lañ tàmbali liggéey jumaa ji bu ngeen dee màggal da ngeen ko màggal waaye nag dem leen ca Baye jaañ mu gën a wóor waaye yaakaar naa 4 mars ñu ñëw ci Baye Diagne Baye Diagne ne leen waaw waaw 4 mars lañ tàmbali liggéeyu jumaa ji daayira ci Touba ñu ngi njëkk a màggal 4 mars 1966 màggal googee ba mu jàllee recette bañ ca am ci xaalis ak 300 yi ma waxoon léegi ne moom lañ doon cotiser bokkut ak nag 1200 yi mille 1200 daan nañ ko teg mooy seen àllarba daayira bi njëkk taxaw ci Touba 1200 lañ daan dajale membre bu ne at bu ne da nga joxe 1200 1200 yooyu moom lañ daan ziyaare sëñ bi mooy seen àllarba bokkut ak 300 yi nga xam ne mooy budget daayira bi. nga xam ne li daayira bi bëgg a def lépp ci droit kon ni ma ko tënkee léegi rek daayira noonu la tëdde xam naa damaa yàkkamti ba li may wax sax daa xaw a jaxasoo ndax temps bi lay jëkkanteel ak yooyu waaye ñoo xam ne daayira kees bi nga xam ne moom la ñuy ci daayira bi nag kees gi du jëm fenn fenn fenn ci lu dul yittey daayira bi maanaam benn membre sañu sañuta sañu te jël benn dërëm ci xaalisu daayira bi di ko def ci soxlay boppam daayira bi nag mën nañoo gis membre bu am yitte am soxla di wala mu am jafe-jafe ñu jël ci kees ji dimbalee ko loolu bokk na ci njariñil daayira membre bu néew doole ñu jël ci kees gi ab lim dimbalee sen ko loolu mën naa nekk waaye benn membre sañ sañu xaalis jaar ci loxoom mu jël xaalis ba di ko def ci soxlay boppam loolu moom kenn sañu ko ba tey itam daayira yoonam nekkul ci politique politik kenn sëñta kenn sëñta woo mbooloom daayira ba ñëw nga leen wax ay kan waxu candidat daayira ak politique jotewuñ dara bu kenn waxtaane politique ci daayira yoonam nekkul ci politik ñun sax fee ci Touba kilifa gi daa santaane ne président bi daa santaane ne kuy dem sax ca élection yi di wate ji sax boo nu fi mënee bàyyil tëni bi moo nu gënal boo nu fi mënee bàyyi tëni bi sol beneen tëni moo nu gënal bu ñu ko mënee am loolu lépp ngir sori rek politique kon daayira moom yoonam nekkul ci politique daayira nag xidma la xidma xidma mooy liggéey bépp liggéey booy defal nit te séentuwoo ca payuk adduna mooy xidma lépp looy defal nit ci séentuwoo ca ak pay ci adduna loolu moo tudd xidma daayira nag lépp xidma la maanaam day danañ dajale alal xaalis bu bare bare xaalis daayira mu ngi jóge ci xaalis daayira mi ngi jóge ci carte de membre yi ñuy jaay card de membre yi ci la xaalis bi jóge wala mu jóge ci cotisation yi ñu def teg yi yi ñuy def ISAS bépp membre at mu at mu jët wala mu jóge ci jaayante yi nga xam ne moom la gaa ñuy def ci màggal ak gàmm ak yu mel noonu wala projet yoo xam ne daayira bi def nañ ko xaalis di ca génn ñu di ko dugal ci kees gi waaye xaalis boobu nag li muy lu mu bari bari bari bari amul benn membre ci daayira boo xam ne dañ ko ci fay benn dërëm ci benn mission bu ñu koy def loo kenn lañ dul fay ci daayira bi kenn lu ci waay di def na ko def ngir yàlla ak wut yàlla ak ngërëmal yàlla waaye ab daayira kenn du ci fay nit kenn du ci jox kenn dara suñ daayira bi bokk lu ci waay def na doon jaayante ak lëggéeyal yàlla waaye bu ci séentu ak pay kenn du la ci fay ab daayira amul fay liggéeyal yàlla dong la loolu nag ñu war cee profité nag ñun ñi xam ne daayira bii ñu nekk nii di ci liggéey kenn ku ne ci ñun poste bañ la jox moo xam organisation la moo xam éducation la moo xam communication la moo xam finance la moo xam lu mën doon poste bu ñu la mën a jox ci daayira bi nanga nanga na nga ko na ko jàppe ne dongo bu nekk ca gerle di liggéey dongo bu nekk ca Daaru Minam gerle Daaru Minam uh, Taïf na nga jàpp ne yaa ngi Daaru Minam Taïf liggéey bi pas-pas boobu nga ko nga ciy duggee ndax ab sëriñ ci boppam liggéey yi muy liggéey loo taalibe yi amul amul solo maanaam façon liggéey bi amul solo li am solo ci taalibe mooy liggéey bii ngay def na la ko sëriñ bi sant maanaam ki nga xam ne sëriñ bi da ko jox aw semmiñ ne ko demal ca àll ba di gor moo ki nga xam ne da ko taxawloo ci bunt bi yor loo ko ay caabi ak ki nga xam ne daf ne ko demal bokk ci daayira bee laa la bokkuloo muy def semaine ba semaine ci lay dem daayira te bu demee lu rafet lay sol toog di naan kafe ak ka xam ne sëñ bi dana ko yow demal toog ci saal bee xéwal gu ñëw gu nuyoo na nga ko fay ñooyam kepp ndax kenn ku ci nekk la muy def bëggu sëriñ bee kon ab taali bi li mu war a xintewoo mooy ne fexe ba la muy def na dëppoog bëgguk sëriñ bi saa yu la leere na lii ngay def bëgguk sëriñ bee lepp lépp loo amut ci sa pas-pas la sa pas pass mo fa agut waye man nga mana am liggey bu meuna don rek maanaam li bëgg wax moy seen daayira bi limi liggey bi disut, liggey bu woyof la ci ker ngay liggey da ngay boole di liggey ak di nan café sol bu mu wex tal mu rafet tok ci barab bu set sha allah amul benn ciono wax deug yalla waye nak ne leen leer ne lu dong mën am ca daru minam taif membre daayira mën na ko am ci daayiraam bi ci pas bi rek la aju pas-pas bi rek li ngay def xamal ne ndigalu sëriñ bi te nga sellal ko ndax sëñ bi daayira bi ak bëgg ma mënut ñàkk sëñ bi daa bëgg daayira bi moo ko digle nee nañ ko def nee na ñun ñi suñ kaw la ko la lañ ko teg lañ ko gàll ñun ñi la ko def loo woo nañu ñun ñi nga xam ne ñun lañ tuddee ay jëwriñ woo nañu ca kaw étage ba ni daa bëgg ngeen boole seen bopp daa bëgg ngeen jàpp ci liggéey bii waxuma kenn yéen lay waxal wax nañu ca mbàkke ca mbàkke sëñ Moustapha nee nañu képp koo xam ne dégg ngeen mu may tuddoo mu may tuddoo te ngeen xool liggéey bii gisu leen ko ci na ngeen sol seenu dàll waaxo ba fa mu nekk ngeen na ko bu dee sama ngërëm dong la bëgg ci liggéey bii la ne bu dee sama ngërëm lay wut ci ay baaru xadim li nusrati diinil qayyim la nekk sëñ Moustapha liggéey bi doo nga ko ñor moom dong mu la bëgg ku bëgg ngërëmal sëñ Moustapha ci zaahir ak baatin góor-góorlu ci liggéey bi liggéey bi nag góor ñi ak jigéen ñi ak xale yi ak mag ñi ñoo ci yem képp kenn moomu ko ñëpp ko bokk moom amul ay adulte ay adulte ak ay jeune moom amu benn man mbooloo la ñëpp ci tolloo wàccuwaay magum juróom-ñetti fukki at ak gone gi juddu biig ci daayira bii ñooyam kepp jigéen ak góor ñooyam kepp te jigéen ñi nag nañu xam ne sëñ Moustapha ku leen bàyyi xel am na gàmm goo xam ne man yàlla dogal maa jiite éducation au niveau national am na gàmm goo xam ne bi ñu gàmmoo ba noppi la mu njëkk laaj mooy jigéen ñi ñaata kamil lañ jàng ñaata kamil la jigéen ñi jàng te pourtant góor ñi leen ëpp luñ jàng te laju leen kon bàyyi na xel jigéen ñi lool am na benn sëñ daara boo xam ne ab talibeem la sëñ Moussa dem na ko wutal ma kamil boo xam ne jigéen a ko bind ci loxoom kon sëñ Moussa ko bàyyi xel jigéen ñi jigéen ñi dañu xam ne sëñ Moussa bàyyi na leen xel lool lool ci liggéey bi nañ ci gën a góorgóorluwaat daayira nag li koy doxal ñun ñëpp xam nañ ko teew ak teewal rek teew ak teewal dong nga koy dox daayira moom boo teewut lu sikk ci daayira bi yaa ko def lu yàqu ci daayira bi kenn jiituwu la ci boo dul teewal lu sikk ci daayira bi kenn réewu ci kenn rawu ci daayira fokk ngay teew ak di teewal soo mënul benn bi nga góor góor lu boog ba def benn bi waaye teewoo teewaloo ci daayira ku ko def boo ne bokk naa ci daayira baatam bokkoo ci te ñun ñëpp nañ leer na fii ñu nekk ni sore na ñu ngi yéen a ngi ci jiwaalo sëñ baa nga ca niboo ji waaye na leen leer na kenn ku ne ci yéen la ngay def ci daayira bi mi ngi jàlloo moom amul kenn ci yéen koo ne xamut la ngay def yéen ñëpp kenn ku ci ne la ngay def ci daayira bi xam na ko foo toll ci daayira bi liggéey bi foofu waay foo waay jàpp ci liggéey bi ñor na ko ñor ñor goo xam ne foo mën a nekk ci réew mi foo mën a loo wet goo mën a jàpp ci liggéey bi sëñ bi xam na ko te na ko te ñun ñii am nañ ci li ñuy wax lu leer nañ xam nañ xam nañ bu baax na sëñ bi fooy nekk mi ngi lay gis mu ngi jàpp ci liggéey bi daa am foo xam ne nag ci ci ay wax duñ fa àgg duñ fa àgg waaye sëñ baa ngi janloog ñëpp liggéey bi ñor na ko ñor boo xam ne fépp fu mu àgg fu mu mën a doon na la wér na jëmmi sëñ bi àgg na fa kon nañ gën a taxawaat ci liggéey bi bu baax te boo xoolee liggéey bi sëñ sëñ Moussa man nee na ma nee na ma sama liggey bi de li ci djublu moy manfaatun linnaas manam njariñul nit ñi dong laa ci djub waxna ca 4 mars ren ji defena ñewon ngeen le sëñ Abdou Rahmane wax doyna seuk sëkk sëñ Abdou man mi lañ ci yebolon ma nak ab delegation ba ñagge sëñ Abdou Rahmane def nañu isa ko wa bëgg nañ ko jox bu bamni bañu nag ñuy taggu ji sëñ abdourahman ca ca taif bañ àggee nuyu ko daf ñu recevoir accueil bu accueil bu bu sedd guyu xol lañu lañu def dalal bu sedd guyu xol lañu def bi ñu agsee mu ne ñu na ngeen góorgóorlu bu baax ci ahibawul xadim man man ma euh, dañ na ko sëriñ bi de dañu la dañ la doon yëgal si 4 mars gi ndax lépp lu waay di yëngal ci seen cheikh ci jamono jii war nga ko yëg te def ci ñaan moo tax ñu ñëw di la ko wax mu ne ñu yàlla na ngeen ci am ndam sim rahman mo ne ñu yàlla na ngeen ci am ndam dal nañu te ahibawul xadim gii na ngeen ci góorgóorlu mu taxaw na ngeen ci jàpp bu baax mu taxaw dal nañu ndax mustafa de lu bax dong la bëgg mustafa lu bax dong la bëgg dal ni xamul sax lu bon mustafa xamul lu bon dal sim Rahman moko séré kon nañu bayyi xel dañu xam liñ japp bu baax baax nañ japp bu woor liñu xam nañ ko xam bu baax gis nga seigne mustafa mi dayram bi ben intérêt nekkalu ko ci ben ben intérêt néewalu ko ci te li ma bëgg bëgg ngeen xam ko mooy Baye Cheikh Sey Baye Fall bu bu bu bu dañul bu bari woon ay mbir la bi suñ Mbàkke nelawee daa ñëw di ko di di ziar si bi mu nuyoo sëñ Moustapha fekk ko ca kaw bi mu ko nuyoo bi muy wàcc daf ne xanaa kii de du diisoo kenn ki ma àndal moom ma ko nettali nee na mën a ceel waxuma ko dara mu ne xanaa kii du diisoo kenn nee na mën a ceel ndax muy wax boo boo ci duggee mu noppi nee na mu toog ba yàgg mu ne kii de bu nekkoon ba Inde bu dëkkoon ba Inde dana am mbooloo kon sëñ Moussa ñun lii lii muy def lu buñ ko defutoon dana am ñeneen ñu ko def lii muy def lu buñ ko buñ ko defutoon ñun buñ ko nanguwutoon dana am ñeneen ñu ko ko defal waaye mënut a ñàkk liggéey bii daayira bii mu sos fas yéene cee liggéey sëñ Touba ñor na ko ñor goo xam ne mënut a ñàkk mënut a ñàkk. daa bokk ci fàggute fi sëñ Tuubaa yi nga xam ne mun na ñàkk fokk mu am na ku ne ma sëñ Moustapha nee na ma gàmm gii may woote Taïf nit ñi bala ñoo woon a xam li ma ñoree dëgg-dëgg ma woo leen kenn ba ñu ñëw su boobaa waxtu yu ma war a génn su jotee danaa génn toog fa ma war a toog di def la ma war a def ba waxtu woo ma war a fatu jot ma fatu man sama jëy bopp maa jël engagement def ko te jëmm ju mel ne sëñ nga xam ne woowu ñu dox leen ma ñëw dañoo jiitu ne kaay leen ñu dem mboolem lañuy def ñoo moom ñoo moom ñoo ko ànd ñun ñëpp xam nañ ko te ni bii ñuy sol moom lay sol ku ci mas a tegagum bët yéen ñii sëñ Moussa sol jees neer koo ko ci mas gis ku mas a gis mu sol jees neer buñ na niko ko ñëpp yi defee ku ko mas a gis mom mu def ko té pourtant amna ko de mbubb mu mel sama mbubb mi lay sol tiise bi sama tiise bi mom lay sol sama kol gi mom lay sol tok ci biir mbolo bi lu ñu def mu def ko lu mbolo mi def mu def ko and ak ñun 100 ci liggéey bi ànd ak ñun 100 pour ci liggéey bi du yox-yoxi du dellu gannaaw du tayyeel guddi bëccëg mi ngi ci liggéey bi te moom ci jëy boppam daa am liggéey bu mu engagé boo xam ne fokk moom mbooloo moom ko àndal te mbooloo moomee warta doon ñenn lu may ñun ñi nga xam ne mooy suñ buntu ci sëñ Tuubaa sëñ Moustapha liggéey bi mu fas yéene liggéey sëñ Tuubaa mënu koo ànd ak kudul mbooloo waxoon dañoo boole seen bopp bu nee jóg leen ñu jóg bu ne toog leen ñu toog mbooloo muy xàccandoo di dóorandoo mbooloo moo xam ne moom la ñuy diglu fu mu joxoon ñu dagg mbooloo moomu dong la mën a àndal ci pas-pas bii mu yor ak doxin wi mu fas yéene doxee ci liggéeyal Sëñ Tuubaa mbooloo moomee nag ñun ñii dong la nañ fas yéene nag moom ni muy doxee xëy na mënuñu ko waaye nañu nañu góor-góor suñ kem kattan ba fu mu gestoo rek gis nañ ci gannaaw ndax moom day wéy te taxawut taxawut te li gën a jafe nag moom la ñuy yàlla defal mooy sëriñ bu matub sëriñ sëriñ boo xam ne boo ne koo jàkk doo xeeb sariyaam doo xeeb xaqiqaam yëmbut sëñ Moussa daraam xeebuwut kenn xeebu ko du ko sant mbàkke du ko sant busu doo ko xool ba xeeb sariyaam doo ko xool ba xeeb xam am na lu mu amal ci jamonoom moom la ko fi ña ko fi jiitu woon amu ci woon sëñ Moussa dem na ba daara ya ca daaru mi nam gerle di liggéey daara ju ne am na jullikaay am na jàkk am na yilimaan am na koy nodd loolu ci moom la njëkk lañ ko njëkk gise ku lislaam ñor la yim ne moo ko tax a jóg itam nañ ko bàyyi xel baax nee na ku yàlla indi jamono ku nekk sëñ musaa nee na képp ku yàlla indi jamono ngay nit ku baax ngay nitu yàlla ñëw ci jamono suñ borom joxagn na la ab tol bolé la ko and jox la ay jumtukaay joxagn na la ab tol bolé la ko and jox euh, jox la ay jumtukaay seigne Moussa nak nee man tol bi ma war ci liggéey moy dundal bisub seigne Touba bi di Aïchirouna Muharram bokku na ci liñ may liggéey la moy gàmmug rasulillahi gi sallallahu alayhi wa sallam ma ma ko ba ba mu ba mu tàkk ba ñëpp seen ko bokk na ci li ñu liggéeyloo sëñ Moustapha mooy tabax ay ay ay daara ay jàngukaay tabax itam ay fajukaay li ma la wax nag lépp loo ci xool rek gis lu mu ca def loo ci xool rek gis lu mu def dispensaire ba mu tabax ci neboo ji ñun ñëpp teg na ci suñ bët gaawu na tey jii gaaw na tey lanu suñ baara convoqué ca kër ga ne dama bëgg ñu waxtaanee li des ci école bi nuñ ko yeggalee waxtaan nañ ba xam li des ci xaalis bi xam li des ci liggéey bi ba xam ne li des ci xaalis bi incha allahu taala bu ci yàlla dogalee luñ ci dolli rek mu mën a yeggalee école ba dispensaire bi nag bu ñu réunion bu noppi mu ne dispensaire bi nag moom yegg na caabi yaa ngi nii dama bëgg ngeen ànd ak man gunge ma ma jébbali ko sëñ Moustapha gaaw na tey jii jébbali nañ. sëñ Moustapha caabi dispensaire niveau ji niveau ji gaawu gaawu tey bii gaawu école yi ñu ngi ci fas yéene nañ moom itam ne ci ba mu mel ni mu ko bëgg ñu yëkkati caabi yi jébbale ko comme lam ne bokk sama waar bokk na ci tabax ay jàngukaay ma nga ca daara jee ci niveau ji gis nañ ko école bii gis nañ ko te sant na section yëpp section bu ci nekk tabax ab école dispensaire bi tàmbali na benn këram. te daa fas yéene mu continuer te ñun la koy àndal kon ñun bu kenn séentu am noflaay sëñ Moussa ko ànd ak moom bul séentu mukk am noflaay liggéey bu jeex bi leen ñëw bu jeex bi leen ñëw bu jeex bi leen ñëw sëñ Moussa du ko ànd ak moom du noppalu liggéey sëñ Tuubaa la fas yéenee def te ñun ñii la ko fas seenee àndal te daayira bii dong moo nu mën a may nag ñu ànd ak moom ci liggéey bi bu mu amutoon daayira duñ ko mën a def kon bokk na ci njariñul daayira bi mooy mën a liggéeyal sëñ te sëñ Moussa li mu bëgg ci membre daayira membre daayira ay baalu xadim li mu ci bëgg xooleen ba xam ban intérêt moo ko ci nekkal nee na damaa bëgg bépp membre boo xam ne bokk nga ci daayira daayira ay baalu xadim nga dañug réer nga dañug réer ba noppi nag suqaliku am koppar mënal sa bopp dara waaw xool leen membre daayira yi buñ dañee ak réer ami koppar mënal seen bopp dara loolu ban intérêt moo ci nekk sëñ bi lépp suñ njariñul bopp dong la lépp lépp bu sosee daayira bi bëgg suñ njariñ ñun ñi dong la kon nañ gën a góorgóorluwaat gën a farluwaat gën a jàppaat ci liggéey bi te xam ne sëñ Moussa daa bëgg suñ njariñul tey daa bëgg suñ njariñul ëllëg sëñ bu fi yàlla indi fii ci kaw suuf xàll nga aw yoon boo xam ne dañ koy jaar jaarale sa mbooloo ba ñu mucc boo ëllëgee sëriñ bu nekk nag yoon ba ngay xàll di ca jaarale sa mbooloo yàlla la koy xamal nga xàll ko jaarale saw mbooloo bañ mucc ñun nag sëriñ bi ñu àndal yoon wii lañu ñu xàllal yoon wii lañu ñu xàllal kon nag nañ góor góorgóorluwaat ci yoon yi kenn ku ci nekk takkaat ak laxasaayam muy góor muy jigéen bu kenn ne jigéen laa bu kenn ne gone laa sëñ bi xamul gone xamul jigéen wax na sëñ Ibra loo xam ne mën naa bàyyi xel sëñ Ibra Lo def ne ko dëkk bii teen koo jox mag sëñ Ibra Lo ci ca daru nam def na ko dëkk bii teen koo jébbal mag sëñ Moussa ne ko man xawma mag ak gone xaw ma mag ak gone xàmmiwu ma gileem gu ndaw ak gileem gu mag man li ma xam mooy gileem gu nangu sëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah barakallah